فنادي همينا وليس على المخيب بي مينا وعين الغلق عين الغلق ما ينم يبهت منا أداء من الموضن به أين لا هدلنا ليل موضن يماس به نيل موضن وإذلالنا بعين فيه مودني فهر آذول له كل ذل مودني سراج من هدي أذير مودني وعين قدر الكل مودني فيا أجبنا لذي نور موضني ونور الأرض في ماء موضني وفي سلبنا لإلياد مولتي ويسمع موازن بالمليون منين يوم مسائل من منين آمنون خير رسي أجب منون تبارك الله xanaa léegi rek ñu jox suñu waajur bi nga xam ne lépp ci loxoom la ko góor gi teg Seydi Aboubacar Sy ubbi gàmmu gi joxe yóbbante góor gi recommandation yi mu joxe bàyyi yu ñu fi ñu toog ci suñu wetu way jur Cheikh Alhaji Ibrahima Sakho di ko wéttali kon boog ñu ngi ñëw jox ko kàddu gi di ñëw tëje suñu wax moo di feddali cantu góor gi ci mbooleem taalibe yi nga xam ne tabarakallahu daje nañu tey ci Tiwaawoon wax na ko ci dernier burdu bi wax na ko ci réception bi Serigne Babacar jottali na ko waat bi mu toogee fii. e di sant itam mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañu ci dëkk bi ak mbu fu ñu mën a bàyyi ko di sant di gërëm bu baax a baax a baax suñu jur wu tedd wala ca Touba di borom kër gi ndax moom lu mu lu Cheikh El Hadj Aziz moom moo ko moom lu mu moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ko moom di Cheikh Salih Mbacké yebal na suñu ñaari rak ñu ñëw ci réception bi ñëw ci guddi gi sànq la ñu tàggoo dellu ndax ju gàmm ga nga xam ne dañ koy def ca Touba ak ga ñuy def ca Diourbel yebal na sëriñ آه، آه، بشير مكي برك محمد المصطفى صالح مكي يبل بوليكو مغام سرين عبد الاحد مكي دومو شيخ سرين شعيب مكة كون بوك سيني ويجور واو نيون كوي نيانال يالا يالا ياغال كو سي جامونو يالا دغرال كو يالا يوكو كو وير يالا يوكو كو كاتن با ليپ لومو بوغ ليغي سي طريقه الشيخ طريقه المريديه bu cheikh ahmed bamba yàlla defal ko ci tawfiq defal ko ci ndam lu ëpp la mu defaloon magam yu baax yi ko fi jiitu te lépp di bokk nekk ci tawfiq nekk ci xabul nekk ci barke ni ñuy ñaanale tam mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo góor gi ñoo bokk ndono seq daara yi seq l'islam bi ak tariqa bu ñu mën a bokk ñooñu tam ñu ngi leen di ñaanal di ndokkeel waa jàmmlaay ñu ngeen ndokkeel tabarakallahu waa kawlax cheikh alhaji abdallahi ibrahim ñas di yeesal njaal ci suñu mag ju baax di cheikh alhaji abdullah muhammad bu khalifa di gañu nelaw bu yàggul di ndokkeel cheikh alhaji omar mi nga xam ne tey alfuuti moo toog ca barab ba di ndokkeel suñu bàyyi mamadou alfa li sek bu cana ba di ndokkeel waa nguraan di ndokkeel tabarakallahu waa jaamal di ndokkeel waa sookoon waa kër alhaji ahmad dem sokone di ndokkeel daal këru diine yépp yépp yépp ak fu tant mën a am rek ñu ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal yàlla di sant nag président de la république bu baax a baax a baax di ab Abdou Diouf ci taxawaayam ci yitteem ci gis-gisam bu leer ci sens de responsabilité bi ko yàlla dénk ndax yàlla daf ko dimbalee ñaari élément yoo xam ne ku ko yàlla dimbalee yaa ngi nekk ci kaaraangeem te moo di équilibre ak mesure kooku ku ko yàlla dimbalee ci jamono bu mu mën a doon rawatina jamono jullit jile yàlla dimbalee na lu rëy amna équilibre amna mesure ba taxna tabarakallah duñu dañ di wax ni ay semba ma ki bëgg-bëggam lépp yàlla nako yàlla motali yàlla nako yàlla sottal ma suma dañ di waxit ni ci samay conférence ak ku nek nañu ku bëgg lo lo lo lo bëgg ñu dindil lako da ngay am fayda ak fitu du tolle di def critique di bind so waré bind lu génn ci télévision bi lu warul génn damay wax toujours ne na ku nek bind man damay bind na sama morom di bind waye gouvernement bi gouvernement bi gouvernement bi wax na ko ba tay

nañ baaxee nit ñi génne ko lépp intégralement suñ ko mënul génn ci benn émission ñu def ko ay épisode bon ni ñu koy defee àllarba ak dynastie altine ak di ko defar xaw ma beneen bi génn dimanche waaye ca dëgg-dëgg dalaas waaye su fekkee ne dañuy dem génne tuuti rek ne lii lañ leen génnoon daal indi leneen kooku it baaxul te tabarakallah boulevard bu Khalil Gueye ñu di ko bàyyi deux heures d'horloge kooku it du dëgg deux heures d'horloge ak beneen émission boobu ñu xewal ci télé bi ñuy fecc da ngay dem sax ba ruus deux heures de temps te su fekkee ne am na lu soxlaal diine ci dëgg-dëgg dañuy wax rek daal di fala fala rek bàyyi génn kooku it gënul kooku ñu ngi koy ñaan te te dëgg-dëgg comme que léegi dañu dafa war a nekk société nationale ah ci dëgg-dëgg dafa mel ne état bi désengagement boobu mu def danañu gën a dimbali kon boog li nga xam ne moom la ñu war di suivre di ko war di wane ci suñu xalaat ci média bi war nañu bàyyi ñu di ko wax waaye war wax gi nag jullit yépp la war waaw jullit yëpp la war warul tiwaawan bàyyi wàcc Touba warul Touba wàcc laayeen warul wàcc jàmm laay wàcc keneen su ko defee loolu daal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax et tabarakallahu loisir kenn mënu ko tere ndax nit it nit la adduna bi e, nit ay couche ñoo nekk ci société bi waaye ku ci nekk it nag la la ñor war nga ko wax comme que tey nag tiwaawan njabootu Cheikh Al Hadj Malick yëpp daje na fi te dama dégg ci sama mag suñu kilifa sëriñ a Aziz si ibnu Seydi Aboubacar muy wax ne dégg na ci baayam Sidi Aboubacar si radiyallahu anhu mu ne Cheikh El Hadj Malick daan na wax ne doom koo xam ne amuloo lu dul génn dëgg te benn bés ci at ngay dajeeg sa njaboot di ko wax soo sañoon soo koy wax ñëpp fekk kon boog tabarakallahu loolu kàddu la goo xam ne ñu ngi koy jëme ci kilifa yi nga xam ne ñooy sàmm wàllu googu xëy na commission boobu nga xam ne sax moom la ñu créé bu yàggul boo xam ne censure ci wàllu télévision bi ci wàllu rajo yi ci wàllu média bi xëy na ña ca nekk ah ña cay jullit te seen diine ñor leen l'islam ñor leen wala daañ ko bàyyi xel xëy na ña tey catholique te christianisme ñor leen ah euh, évangile ñor leen waxuma nag évangile yi nga xam ne dañ ko falsifier ndax benn injil moo am waaye anajil la ñu mujj indi l' évangile de Maurice l' évangile de Matthieu Maurice Saint Jean Yohanna ak Mata ak Louis di Luqa yooyu yëpp dafa bari te yàlla leen benn injil la ñoom nañu def ko anajil yu bare bari dama defee ne ñooñu seq commission bi ku ci sa lislaam ñor sa diine ñor la réew mi ñor la mucc réew mi ñor la daa wax ci liy xew te kat réew mi ñu ngi jëm ñu ngi dérouté wu bu métte métte métte affaire wàllu jikko

di sant département wala ministère bi nga xamne ne ñoo yore ndox mi di abdul qadir si soxo ak cheikh hamidou kan tabarakallah di sant bu baax a baax nak ki nga xamne ne suñu wëllëre di maktar kebe di yore radio bi di sant directeur général tidiane dali ndjay suñu soppe suñu xarit suñu wëllëre di sant bu baax a baax it ci couvrir bi nga xamne couvrir nañ ko gamu gi ak avènement yépp babacar diagne bi yore télévision ni ñoo sante suñu xaritu bop suñu wëllëre bopp suñu soppe bopp di ibrahima sànni yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi yal na fi yàlla dolli juboo yàlla dolli fi manko yàlla dolli fi sutura yàlla dolli fi xéewal di sant di gërëm bu baax a baax it suñu mag alxaaji mouhamadul mansour mbay ak mbooleem technicien yi nga xam ne ñëw nañ fi tabarakallahu jóge dakar am na benn boo xam ne maa ngi ñaan waa rajo bi ñu bàyyi ko xel c'est pas la pub ñu naan tiwaawan 1 ak tiwaawan 2 boobu rafetul waaw kooku su ma ko déggee sama xol day naqari tiwaawan benn tiwaawan rek la nañ ko tudde neneen nañ ne zawi abu seyd abu bakar wala ak zawi cheikh alhaj malik wala jumaay cheikh alhaj malik jumaay seyd abu bakar waaye tiwaawan un tiwaawan un tiwaawan deux am na lu ci nekk nit mën na ci jaar profité ci yàq ji xawul jub ci sama xel tabarakallahu nañuy wax rek njabootu cheikh alhaj malik demal nañ leen ci sëriñ mansour ba ñu jógee ci seen papa abdou demal leen kër sëriñ mansour waaye un deux daal nañ ko xaw bàyyi boobu daal defe naa rafetul bu ko defee nag ñuy ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla maye tawfiq boo xam ne daañu dem ba kàddu lislaam yépp nekk benn ni ki nga xamee ne parti politique yi ñu ngi nekk bay retrouventé di daje di ba ba code bi nga xam ne mooy code électoral li ñu ci doon coow yépp ni ko ministre Madien Khary Dieng waxee sànq euh, dem nañu ba Abdou Diouf ne def leen ko nu leen neexee ba ñu dëppoo ci waaye jullit ñi nañ jéem a dëppoo ci dara jullit ñi nañ jéem a dëppoo ci dara te it nag eh, ñu delloo lépp yàlla nag waaye bëgg xëccoo jaam mooy moo tardeel Sénégal yàlla nee na am na lu ma soob te metti ma waaye aw ma ci pexe ida duiya allahu waxdahu kafartum wa in yushrak bihi tuminu falxukmu lillahi alaliyi alkabir dalikum bi annahu ida duiya yàlla nee na li ma soob daal moo dina suñu ne yàlla kese rek boole woon jeeg ak Serigne Touba wala alaaj Malick wala maam Limaamu wala ndi ku nekk sànguwaat ne aw ma jot waaye suñu ne yàlla ak Serigne Touba yàlla ak alaaj Malick ñu ne ku jógul dee yàlla ne noté naa ko yëg naa ne doxul وإذا ذكر الله وحده اسم أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فنبوك تبارك الله جام غوغو نيكو مانا ديم ني مانا ديمبالي دين ديمبالي يونس بي صلى الله عليه وسلم تي خيت بي مودي ني نيك تي بوب كونفريري مودي ني نيك تي بوب مبولوي سوكو ديفي دال لولو نيو كوي نيان دي نيان نك يالا اوسي بيغا خامني موم لا نيو دگمل نيو غان يو تيد دي اي شيف ديتا دي اي برنس دي اي روا دي ورا نيو في داجي لپ لوتي يو di ci mucc di ci jàmm yàlla na ko yàlla dimbale président de la république dimbale ko gouvernement bi Habib Thiam ak membre gouvernement bi yépp ba li ñu bëgg ci sécurité li ñu bëgg ci jàmm li ñu bëgg ci mucc lépp yàlla na leen ko yàlla defal ndam lu rëy la pour Sénégal sëriñ Abdou Muna wax na ko sànq ci réception bi des na tuuti rek su sommet bi su sommet bi ñëwee fi seen Dakar Dakar mooy nekk capitalu umma islamique yëpp kooku kon lu rëy la ku ci nekk war na ci ñaan war na ci taxaw war na ci jàpp ñu ngay sant ñëpp di sant techniciens yi di sant itam tabarakallahu euh, ki ne jàng bu rajo di sant daal képp koo xam ne daal yaa ngi liggéey ci rajo bi di baalu xaq ñëpp papa ñu ngi lay jox kàddu gi lii leen yëgal rek euh, lii daje bi nga xam ne coordination de daayira Tijaan ñoo ko war a def ci le 28 ak le 29 ak le 30 décembre tabarakallahu ci ca Dakar muy journée culturelle yi ñuy déjee Cheikh Ahmad Tijane Chérif 31 ak ci boppam ci bés ci guddi ga mooy gàmm gi nga xam ne suñu way jógi Cheikh Alhaji Ibrahima Sakho moo koy taxawee ah ñu ngi sant yi itam di gërëm Serigne Habib saako ci turam en tant que muy suñu rakk di suñu doomu baay di suñu xarit waaye en tant que di ko gërëm itam ci mbooloo mi nga xam ne moom la jiite mbooloo mi nga xam ne moom la teewal yëg nañu tabarakallahu ak doxam yëg nañu ay yig ay liggéeyam ay taxawaayam tabarakallahu moom itam kon ci cadre mbooloo moomu ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant ak mbooleem ñu ngi ko fekkal tabarakallahu di ci gërëm ki nga xam ne itam seen président d'honneur la di kilifa ci diine ji di kilifa ci waa kër cheikh na cheikh saadu abi cheikh saadu abi di cheikh cheikh sid abdul aziz haydara bi nekk Thiès تبارك الله سيم جينو يالنا كو يالنا باركين دينين بغي يالنا كو يالنا باركين نيغي نوي يتم شيخ الحاج مالك سيل ماودو دي غرانتي مام دي داكار دي دي بريزيدان دي زاسو دي اسوسياسيون دي زيما دي زيمام اي دي زولمان دي دي سينيغال تبارك الله تبارك الله يالنا يالنا بولي ديفال جام اللهم صل على امنا يي جام بو نيو لين دي ييغال مودي جام بير سيرين بابكر واخون نكو سانك واي نيو گن كو فدلي وات يسالات كو مودي لو 30 نوفمبر ci la sama njabootu papa alhaji ahmad sise pir di gàmmu te ka fa nekk tey di Mouhamadul Moustapha Cissé di conseiller personnel bu président de la république di ancien ambassadeur tabarakallahu mi ngi invité mbokk jullit ñëpp ñëpp ñëpp Serigne Mansour moo fi teew tabarakallahu Serigne Moustapha Cissé Moustapha Cissé xam naa ma nga ca ay magam di Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Mansour ca jàkkee ca jumaay Serigne Babacar radiyallahu taala anhu kon boog Serigne Mansour soo demee nga jottali Serigne Moustapha suñu nuyoo suñu ziyaara ah loolu seriñ bi waxoon ci euh, haddiye bi mu ne woon nañ ko dajale Serigne Babacar wax na ko waaye kenn defa ci dara balaa ngeen di dem na am nañu tànn ñoo xam ne ñu baax lañu ñu mën a taxaw mbir moomu la ñu ngi ñaan ñoom Ousseynou Gueye ak alxaaji Mansour Niang mi taxaw ñu tànn ay nit ñoo xam ne liggéey boobu seen bàyyi xaaji Abdoul Aziz santaane danañ ko liggéey ba mu yemb ñu tejale ko fii balaa ñu fiy jóge ñu ngi yëgal nit ñi itam ne leen am na gàmm goo xam ne ma ngay xewe ca Saloum samedi ji di ñëw ci këru njabootu alxaaji Ibrahima Xor Jaka ca Séwal ka koy taxawee di ko jiite mooy xalifaam bu baax ba di Serigne Tahirou Ka ñu ngi koy yëgal mbokk yépp ku ko mën na ko teewe di sant di gërëm bu baax nag suñu rakk suñu turandoo Cheikh El Hadj Malick Cissé Cissé yal na la yàlla loo maqaamu maam yi ak way jur yi nii nga daan ànd ak suñu way wayjur baax ko Cheikh El Hadj Ahmad Cissé di toog ci sa wetu papa Abdoul Aziz ak moom ba mu fi jógee ba léegi guddi gu guddi gàmm gu jot yàgg sa papa Cheikh El Hadj Abdoul Aziz la ba fajar nga dellu mu ñaanal la nga dellu fit kon boog li ngay taataan ci leer ak yiw ak barke yàlla na la ko yàlla defal ñuy sant daayira di sant fédération yëpp di sant association islamique yëpp ñu ngi sant itam waa Ibadur Rahman envoyé nañu délégation boo xam ne ñëw nañu këru diine yëpp dem nañ fa ñëpp contacté nañ leen ndokkale leen ci guddi gi ndokkale leen ci bés bi yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli fi sutura dolli fi ndam dolli fi manoore bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad dafa am ku ñu soxla ku ñoo wax Samba Ndiaye ah ah Samba Aïcha Samba Aïcha Ndiaye mu Serigne Abdoul Aziz mu ndaw sëfooru sëriñ Abdoul Aziz Samba ay sa Ndiaye waaw waaw